أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الخائل إن من أحسن الحسد الخلق الحسن وعلى آله وصحابته المتخلقين بأخلاقه إخوة الإيمان أخواتي في الله أقول نيابة عن شيخي وسيدي أبي بكر محمد المنصور أقول نيابة عنه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جلتي جناو بني مسلوتي شيطاني ولا بك بني مسلوتي بكن دخ سرين سنين أنا شيطاني تيجي آه، كون لو في واحد أكبر كور danaka bakkan la ci yobbu waye yalla ñu yalla boole musal ni ñëpp ci sunu bakkan di ubbe suñu wax nak ci turu yalla di ko sant di ko mbokk waxe legi bi muy ubbi rek daaw ak ren du ben fan du ñaari fan du ñetti fan du ben minute du ben waxtu ay waxto ki minute la ay bisi ak i la yalla di ñu may ñuy dundu ñaanon ñu yàlla ñu ma yàlla may ñu fekkee waat déwén ci biir ñaan googu yàlla nangu ko doonte ne am na ci ñoo xam ne ñi dem nañu waaye ñaan gi yàlla nangu na ko ndax ña dem la tax yàlla yóbbu leen moo gën ci ñoom ñi fi desit li tax yàlla bàyyi leen fii moo gën ci ñun ndax yàlla lépp lu mu def rek daf koy attee ci maandu ko defee nag ñi dem yal na leen yàlla yërëm dem nañu ci ku baax dem nañu ci koo xam ne ki ku ko fekki dootoo am benn coono bu déggee Seydina Muhammad doon wax ak benn mag naan ko màggat du dem aljanna te it màggat du dem aljanna màggat du dem aljanna màggat du du du ko xeeñ sax ba di ko jege aljanna ku fay dem da nga war a yóbbaale cër yu wér waaye këru xéewal la boo fa yóbbaaleeg màggat amatuloo bëñ amatuloo dara loo fay jariñoo waaw moo tax képp ku dee rek dangay dellu ci fanweeri at ak juróom benn ak juróom nga xam ni sa kàttan ak sa bëgg-bëgg lépp nekk ci yow yàlla ubbil la buntu xéewal yi waaye dem dem ak màggat boo demee la yàlla di terale mënoo ci dara noo koy jëriñooti moo tax boo demee ci suuratu ida waqaatil waaqia nga xol tafasir yi bu baax a baax dana la wax nit ki nga xamni moy dem aljanna ci yan at lay toll ak asbab yi nga xamni motax nit du ca dem kon yalla momu ko jara sant la damay faral di wax naan ñun ñi fi tok ñaata lañu bari nañu ñaata fi ah wul matul sax benn matul sax benn bu ñu dajale woon suñu yërmande ñu ñëpp du mat benn ngir mbaaxu yàlla rek yërmande yonent bi nee na cent la cent yi quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf yëpp yàlla téyel na ko boppam kon lu des matul benn zéro zéro virgule kon zéro zéro virgule boobu ñun ñëpp ci la ñuy dund ak bàyyi ma yeeg rab yi koo ci gis mu am yërmande ci loolu lay dund la ci des yëpp yàlla téye ko di ko xaare jaam yi kon kooko ñu ëpp yërmande c'est que nit ñi nag dañ ko joxatul seen bopp kenn ku nekk sa sëriñ la la ngay la sa sëriñ di wax ngay dégg ngay gën a dégg li alquran di wax waaw bu yàlla nee nii sëriñ bi ne nii nga toppi sëriñ bi bàyyi yàlla bu sëriñ bi neexul nekkee ci lu neexul yàlla yàlla nekk am bëgg-bëgg nga bàyyi fi li neexul yàlla nga bàyyi fi li neex sa sëriñ def li neexul yàlla Sénégal yëpp boo loolu la dund léegi firnde bi rek mooy koor ren ñetti koor a am te yàlla benn weer rek lay wane kenn ku ci nekk toppoo yàlla sa sëriñ nga topp amul kenn ku topp yàlla ren kenn ku nekk sa sëriñ nga topp mooy tax Sénégal dañuy wax naan 95 vingt pour cent sont des musulmans or que li ci ëpp soo dee mi nu nit ko dog faa xafara dem na ba ci loolu xam nga sëriñ bi mun laa gàddu daaw ba ren te loo am sédd ko ci yow lan la la sa sëriñ ma sa sedd boo dajeek moom yaa ngi am xalaatu làmb sa poos jox ko ndax moom boo dajeek moom dana am xalaatu jox la dara tax waxuma bu kenn topp sëriñ nag waaye leen la lu ci nekk dafa am cër te cërub yàlla sëriñ mënu ko yor du yàgg mukk ba yàlla wàcc ci cëru sëriñ du yàgg mukk ba nit sëriñ yéeg ci cëru yàlla kenn ku nekk da am cër ko defee loolu buñ ko teelee xam rek danañu mën a ànd ak yàlla waaye sëriñ si yóbbaale ñu mbaa ñu yóbbaale leen yàlla lan moo ko tax a nekk yàlla yàlla ku ko tax a nekk yàlla boppam mais kenn nekkul mais sëriñ bi du ko def sëriñ ah déedéet du ko def sëriñ taalibe mais talibé bi lu ko def talibé sëriñ ñom ñaar kon kenn ku nekk war nga jox sa morom jukkal yàlla nañu yalla dimbalé ñi yag di ko sant kon ñu koy sant bu baaxa baax ñu koy sant bu baax li fi jaar ci ay xew-xew jaar ci ay metit jaar fi ci yu bari yalla di la ci musal di la ci sam fo tolo war nga ko bayyi xel Sénégal nag loolu rek moo leen tardeel bëgg nañu yàlla waaye dañ ko wóoluwul damay wax ni lu fi baax lu nekk ñu ne ñaanu mag ñi la waaye bu nattu dikkee ñu ne ci yàlla kon yàlla amul lu baax ci misaal ci nit ñu di waxe lu fi baax rek ñu ne ñaanu mag ñi la bu nattu dikkee ñu ne ci yàlla kon yàlla nekkewu fi lu dul te yàllaa ngi wax naan ma asaabaka min xasanatin fa minal laahi waaye wa min sayiatin seetal sa bopp waaw wa min nafsika waaw lu la dal ci lu baax rek yàlla nee na mën waaye safaan bu la dal seetal sa bopp bu ko defee nag ñu ngi koy sant bu baax moom borom bi subhaanahu wa taala ñaari sant am nag nit ñi sant ndolent rek la ñuy def waaye cantuñu yàlla ngir yàlla da ko mérito sant yàlla ni yàlla dal lii wutuma ci dara dama ko jox rek ni li dal ya ko mérito ken mérito way bo ne alhamdu rek li shukri wa shukru li ziyadati waaw wa shukri شغلا يبدا اسماعيل نينا الله hadi wa shukri rabbil la sharika lahu fii mulki laa wala andaada subhaana jërëjëf Cheikh Alhaji Abdoul Aziz moo naan xamdi sant yàlla bu baax nag wut ca shukru ngir ziyaada dafa sant ngir yàlla da ko mérito waaye ci biir cant gi nag am na lu ko tax a jóg mooy wut shukru mooy euh, naa dugg ci naa dugg ci dama naay continuer ci li ma bëgg jëm rek maa ngi bëgg a déwi yeewu bu ko defee ñu julli ci sayiduna muhammad na mu ko bëggee yàlla nañu ko defere noona ëmbal ñu ko bañ ñoo xoolee suñuy manqué manqué tekkal ñu ko ci loxol Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, itam boole ci njabootam boole ci sabaa saxaaba yépp ñu yëkkati kàddu nuyoo nag di ci wutu sunu sëriñ di sunu lépp muy sëriñ Babacar Sy Mansour mu jëmee ko ci njaboot gi yépp di ca jiital imaam alxaaji Ousmane di ca teg góor gi alxaaji Njaga ñoom ak Isma ñépp daal sëriñ Babacar ngi leen di nuyu ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp di leen waxit ni mu ngi leen di ndokkeel ci weer wu tedd wi weer wi fi ñu toll njaayeen yëpp nee nañu weer wi dafa tàng ah ndax weer wi dafa tàng ah weer wi ah sëñ Ousmane tàngul de xam nga bu yàlla ne weer wi daf ko andi awaluhu rahma bu rahma ñëwee ànd ak tàngoor nu muy mel kon du baax rahma munta ànd ak tàngoor waaw yëg metit yëg waaw neexut munta nekk kon yàlla ni dafa wàccee weer bi mu ànd ak yërmande kon ki yëg tàngoor mooy ki bàyyi xel jant bi bàyyiwul xel yàlla comme ni ñu waxoon léegi rek koor itam خيف تاخو كو جوك وايي كي باي خيل خيف موي خيف يالا اندي ول كور بور نيت ني خيف دا فا اندي كور بور نيت ني مانا موتشي اولك بنيوان كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم بوخون تجوعون ني خامني يالا داف ني بغا خيف لو وبوخون لعلكم تصحون ني خامني كات دانيو فيبر يالا بغو نيو ويرلو waye la'allakum tattaquna yàlla dafa bëgg ñu mucc mucc fii mucc fële ak taqwa nag ni ma ko firee woon démb ci waxtaan moo di ragal ah ragal yàlla nit ki boo ko ragalee loo mën a def ci kanamam bu fekkee nit kii da ko ni jàkk tiit ci kanamam doo looy def doo ànd ak sa sago ki nga ragal doo ànd ak sa sago kon taqwallaahi bu ñu ko firee ragal yàlla du dox boo ko firee ragal yàlla du dox dagaru yàlla te taqwallaahi du bàyyi du mooy bàyyi ay tereem encore waaw boo bàyyee tere yàlla yi am na loo xam ne di yaa ngi ko yor te bakkane la ko euh, ginnaaw yàlla bakkana la cay omat boo ca defee loo boo ci defee lu ëpp rek mu jural la mu jural la tere yàlla moo tax mag ñi dañuy wax ni fii ak nit ki bàyyiwul lu aayul ngir daw lu ca juddoo lu aay ragalagul yàlla لا يكون الرجل من المتقين حتى يترك ما لا بأس فيه اتقاء مما فيه بأس دغاي باي لو اي كول غير داولو سي جودو لو اي خولال ليغا دان ديف سوبا بو خيه داغا دان بودي دا باخ نين سما دوم باجام بي دا خاي نديكي نديكي لا ليك لي مو نان كافي رك يام تي دو سي تك بور دو سي تك دارا واي ليغي مو مو خاي نديكي 7 heures اني او مويس ميدي 1 heure demi 2 heures moyenne reer huit heures wala waaye léegi nga dajale li nga doon def sept heures li nga doon def une heure li nga nar def ci guddi gi ci trente minutes ci koor gi da nga daan xëy daawoo naan bisaab waaye dóol café mbur ak bër fonde bi eh, ak la ca topp ak la ca topp ak la ca topp boo ye boo boo bala nga julli timis boo demee li nga da nga noyyiwaat biir bi waaw bu ko defee nag kon am na leneen loo xam ne li mu naa tax nga mën a mu mën a bàyyeeku ci nekk ci sa boutique dootul bàyyeeku day gën a waaw ça foofu boo xëyee boo demee ba naafi la ji ba ñëw daal di ni xëdd daal bu mbëstan jotee bu demee ba fajar nga ni ah mën naa mos dara mais xoolal diggante boobu ngay mos diggante bi di lenn lu ci nekk cinq de temps doxoon na fi kon koor ragal yàlla lañ ci jub ragal yàlla mooy bàyyi loo xam ni yaa ko moom mu wóor la yaa ko moom mais boo ko jëfandikoo ni nga ko bëggee lu aay juddoo ca nga bàyyi ko loolu mooy ragal yàlla kon ñu ngi ci ndokkeel yépp kon koor ñëwul pour mbugal nit dafa ñëw pour defar nit digg bi fi mu toll nii ñu ngi ci almaghfira ñu ngi ci njéggal ku bëgg ñu jéggal la nag dangay ngay moytu lu tax ñu dina jéggal waaye dóor nit ni ko baal ma mu ne la baal naa la pareegul nga wéq ko ci saa si du mën sotti moo tax yàlla dana jéggale lu nekk waaye amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zaadu kufran lam yakunillaahu li yaxfira lahu bu ko defee mujj gi ñun ñëpp safara lañu rag xam nga Sénégal fi mu tollu ku ci jaamu yàlla amul wax ma leen na ku ci jaamu yàlla ak ñiy julli lu tax ñuy julli ragal safara ay yàlla taxatul bëgg aljanna ak ragal safara fi tax ay yàlla jaamu yàlla rek jafe ci réew mi koo gis mu dem ba bëgg tëdd daal ni ah man bu ma dee ci guddi gi nag daal jóg fët fëti bàyyi bor yi mu yoroon yëpp daal di profité fay kon yàlla taxatul bëgg a dem aljanna tax wala ragal safara wa min annaasi man yabudu llaha ala xarfin fa in asaabathu xayran itmaanna bihi wa in asaabathu fitnatun ala ala inqalaba ala wajhihi xasira dunia wal axira yàlla ni dalika huwa alxusraan almubin dañu nekk Maroc di def examen bac ci biir koor bi ñu defee bac première kii bi am ñu at ñu ñun ñu bokk ci deuxième tour ak yeneen naar deuxième tour bi ñëw yàlla baaxee mais naar yi nga xam ne ñu ngi doon woor te at bi wuñu deuxième tour keroog lu yàlla déggul am ñëpp a dog naar yëpp yëpp eh, étudiants yi ñëpp a dog kenn ku nekk nag bi yekk yàlla lu nekk nga gis ni kon nit ñi am nañu bëgg-bëgg di ci woo yàlla waaye bu ñu paree fàtte yàlla salla wa li amrin kaana yatlubuhu xata xawaahu fama salla wala sama man day bëgg naa dem Italie kon koor gi daal duma ma manqué jàkk ji damay julli di ñaan di julli di ñaan bu Italie ñëwee nga ne yàlla au bari na bari na xale yi xam nañu li may wax fi mu toll koor doo am foo teg sa tànk ci jàkk ji waaye cey bu koor gi jeexee te li tax ñuy dem jàkka yi dañuy fanaan di veille pour bañ a nelaw guddi mën a nelaw bëccëg pour bañ a yëg koor gi waaye koor nga <laughs> defee ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di balu xaq ñëpp it yàlla nañu yàlla may fekkewaat bu fekkee yokkute nag Sénégal dañu wax ni téeméer bu nekk juróom-ñeent fukki ak juróom yëpp ay jullit lañu kon lu tax Sénégal yàqu te jullit dafa am jikko moo tax tey ci jikko lañuy waxtaan euh, nit bu juddoo nit ki bu juddoo ñi koy reew li bu ñu reewlee ba pare jigéen ñaa ngi fi ñoom xam nañ leen bëgg a wax xale bi judd na mu ngi ci seen loxo lu ci seen xalaat xale bi judd na mu ngi ci loxol ñi ko rew li mais ci saa si foofu am na lu xale bi laaj li mu laaj lan la ah sang ak dindi lépp luy salte ci moom bu demee ba juróom-ñaari fan yu jot bu ilimaan ñëwee ba lañ koy indil ilimaan lu ñuy def ci moom wat mu set waaye léegi kenn watatul moo tax xale yu bari dañuy ñàkk xel wala ñu feebar waaw dañu dindi tuuti rek bàyyi la ca des moo tax xale yu bari bu ñu demee ba sem bu ñu amee problème mu feebar wala problème mu xel rek ñàkk wat ko la bu loolu amee nit war a jàkkaarloo ak boppam cang gi dañ koy sang wala boog amaa ñu koy sang ñu tàqali ko ak lëtt boobu ñuy wax nga xam ne dafay ànd ak moom moom ci la daan dul ak yooyu dindi ko wàcc sang ba mu set soo koy laxas indil yaay ji période boobu yaay ji nekk donte de wér na àndatul ak sek mënutul a jege kenn il faut bu fekkee ni am na ñag ñu yàlla di baaxe bu ñu amee doom rek daal di gis set daal di mën a sang commencé waat seen julli commencé waat seen activité yi nga xam moom def ci seen wàllu diine mais bu dul loolu du am diggante boobu muy mu nekk nag fii ak setul du mën a bokk ci li nga xam ne moom la yàlla bëgg kon nit bu juddoo rek indaale na loo xam ne il faut que mu dañ pour ñu mën ko téye ke ko jurit ànd nag loo xam ne li il faut que loola dañ set pour mu mën a dugg ci activité yi nga xam ne yi dootul am fenn fu ñu ko mën a bloqué pour mu def dara mais ci biir semaine bi nga xam ni kooko waxuma sax kooko waaye ñun ci sunu biir semaine alxamis bu nekk luy sa xalaat ah de waxuma tuddatuma xale bi ñun ci sunu biir jullit yi alxamis bu nekk luy suñu xalaat ah man mënuma conférence jàngale rek la man ah nooy waajale aljuma alxamis nga nekk di waajal aljuma dagg dagg we kon dese la bokkatul ci yow boo ko dindiwul mu la jël la boo ko dindiwul seytaane sama topp nag li nga xam moo ngi nekk ci sa jëmm ndax jullit bu toogee 40 suur yu mu dindiwul weewam watuwul watul watuwul ay toppatoowul pokkataanam ak kanam ak yépp daanaka lu mu julleeti sobee koy téye dootul agsi ci moom kon nga gis ni biti bi war nga am benn yitte boo ci def yitte boobu mooy alxamis bu nekk nga dindi sawee li ko tàmbalee ngoonu alxamis ba ba ñuy nodd zawalul jumaa foofu li ci nekk ci dindiwe ku ko xamoon julit bu ko xamoon yittewoo ko alhamis bu nekk waaye duñ ko wax nag waaye ku ci nekk ku ko xamoon di ko yittewoo toppatoo sa bopp toppatoo gis nga euh, julit kenn waru ko jangal set ñun dem nañu ba jëmmi jamono ñu di ñu andil ci buntu ay di ci def ordre ki ak i omo dañu tardé koo xam ne ki yow foo toll yaa ngi jàpp set war nga am mel waaye boo demee ba jëmbi jamono ñu indil la benn beñ waa tegal la ko ci sa kanam ni la da ngaa salte raxasul mais kooku tardement la julli kenn waru ko fekk ci place bu mu setul amul nga gis yooyu yëpp nag kon yàlla def na ko ci yow wax na ne na nga teg loola ñaq yi nga xam ne vapeur yi bu fekkee ni ñaq wi yàgg na ci bu yàggee daf lay jural fat da lay jural feebar yooyu yëpp nga di ko sang pour mu set nga xam ne kon bis bu nekk yaa ngi raxasu juróomi yoon di raxas yi nga xam ne poussière bi dana ci jaar ak yépp muy yi nga xam ne mu ngi nekk ci biti kon foofu il faut loolu nga toppatoo ko mais nag yàlla bind la mais mu ngi la bind ci suuf la bind fii ci suuf la bind mais suuf seetal façon suuf ni mu nga xam ni kon yàlla bind na la mais def na ci yow ak réer ni la jàngil def na ci yow ak coxor ni la xeex ko defna ci yow yakamti ni la dindi ko defna ci yow meuna a yep ni la dindi ko kon nit ki mo wara def face ak bopam aqbil ala nafsi wastakmil fadailaha fa anta bin nafsi la bil jism insan waaw nax nit a ngi toog ma nettali na ko sax yàgg na ko nettali nit di ko dégg nit lan mo gën wëlëre ci jëmmam xol bi ak mais li ñuy gis ñun ci li ñuy teg bët lan moo gën a valeur ci jëmm nit xar kanam xar kanam moo gën a valeur ci biir jëmm mais xar moo gën a salte ci nit fu baqata di génne ci kanam fu yuut di génne fu ñandaxit fu fu fu laas fu yépp nga génne ci ci kanam mën ngaa génn sa kër te sanguwuloo waaye génn te selmawuloo te seetoo seetu bi te li nga gën a fonk moo gën a sarti ci yow yàlla fu mu nekk ah ci xol ak xel waaye am na la foo xam ne fi nee na boo fa agsi agsi nga ah yàlla nee na ku agsi ci moom rek agsi nga ñun nee nañu mu ngi ci xol dëgg la waaye am na foo xam ne fii mooy wane ni àgg nga ci yàlla was wasjud fu yàlla nekk nekkul foofu ndax booy demee ba àgg foofu da nga koy weddi ni subhaana rabbiyal kon nit la bëgg mu wàcc bu wàccee yem ak moroomam doonte ne am am dikk na ndax boo dee seet ba ngay ñëw lañ seet bi ñu la watee dañu ko jënd ndax biñ la sangee fu mu génn rek dooto wax kañee ngoog jeneen a ngoog te jikko jubal rek ko yàq ñun nag nit li yàlla bëgg ci moom mooy mu defar jikkoom xalaqa xuliqal insaanu min ajal yàlla dafa bind ci nit pour mu yàkkamti waaye yàlla ne fala tastaajiluuni bàyyi leen yàkkamti waaw al ajalatu min alcheytaani wa taanni min arrahmaan yàlla nee na yàkkamti cheytaane ko tax a jóg waaye dal ak teey yàlla rek ko tax a jóg nga génn nag إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما zaluman bi nafsihi jahulan li nafsihi nit dafa réere boppam ba pare di tooñ boppam waaw kon nit la koy defar mooy jikko ba tax na ñu indi jikko ni danañ ci waxtaan mooy adresse bi nga xamee ni ku génn moom lañu lay xàmmee man la ma wax leen maay kan man man a kan Sëriñ Mbay ndax wër na ni mën a sëriñ Mbay moom ngeen may séene ngeen ma séene rek sëriñ Mbay ngeen may séené mais est-ce que tur bi wuyu naa ko wala wuyuwuma ko loolu mooy problème bu ngeen ma xamee woon ci dëgg-dëgg xam ngeen ni mën a sëriñ Mbay waaye bu ngeen ma gisoon lu ma romb mu dem bu ngeen ma séenatee may ñëw nu ngeen may tuddee dootu leen wax mukk sëriñ Mbay a nga nii di ñëw sàcc baan ngi di ñëw nit nit ci ko ñu la ko biralul ba nga dégg ko it loolu dañ leen koy wax bu ngeen ma xamee woon lu ma dégg nettali ko ah noppi leen de moom day ab sëriñ la waaye moom moom la sëriñ Mansour radiallahu taala anhu ba muy dénk alxaaji Abdul Aziz ni ko nit ñaa ngi xame nit ci jikko kon defaral sa jikko te nga rafet ko rafetal ko kon nit jikko juddu am na solo waxoon naa fi daaw xaw ma daaw jéeg xam nga judd am na solo mais kañe lu ko rax kañe bàjj bàyyi ndey taaj fa umpaañ maam lépp bu beneen bu génnati dootoo wax kañe gaangoog da nga naan jenee na ngoog kooku ku ko ëpp judd ku ko gën a la yax waaye am na jikko jikko boo xam ne bi ku ko séen ci mbedd mbaa nga séen ko ci sa mbaa nga séen wutal ko pexe moo tax inna akramakum indallaahi bu dul loolu amul solo man yax bu ci yax bu rëy laa bokk te loo def bu sant acam faw bokk ba tax na <laughs> adresse nit mooy jikko alal ak juddoo xam-xam ak lépp lii adresse nit ki du loolu adresse nit jikko ku nay jikko la tabe jikko la Euh, oh, wàcc jikko la mais rëy jikko la ah ngistal jikko la mais yii yëpp mu ngi ci biir jullit yi te xamuñu yàlla da koy bañ moo tax lislaam garantir nit ki ni bu fekkee ni bëgg naa dund dund gu aw dund gu sell dund gu baax te texe du ko def ci ñàkk yar du ko def ci ñàkk jikko te ñun gis nañu fii ci sunum réew ñoo xam ni dañu tudde seen bopp ay jullit ak lu nekk ñu nekk ca waaye seen col jekkul duñu sol lu baax duñu wax lu baax duñu toog fu baax te jikko am na ci loo xam ne li dafay jeexital ci julli am ci loo xam ne li dafay jeexital ci matière te nit ki nag mënuñu ko compter nit lu dul dafa moom boppam ndax senegal am na liberté am na indépendance yéen ñi dund Sénégal gis ngeen fi indépendant bu ñuy tax ñuy wax Sénégal am na l'indépendance ah te ñun nee nañu am nañu l'indépendance dañu ko wax ni am nañ ko 60 am nañu 60 l'indépendance boobaak léegi sunu sunu col ak sunu comportement ak sunu doxalin moomatuñu ko dañ ko jiggaani kon amuñu leen l'indépendance démb ba tey dañu nekk ci benn baat di ko gëstu ci olof te mënuñu ko xam ku xamul sa bopp ku xamul sa langue nooy xam nooy nekk nooy amee l'indépendance démb ba tey dañu tudd nekk di gëstu baat bi ñuy wax ak damir tubaab di ko wax conscience lan ngeen koy tuddee ci olof conscience mu ngeen koy tuddee ci olof ah kóolute mooy al amaanatu ah jom ak ko bokkul

bëgg lu baax de lu nekk nga koy wute ku bëgg lu baax lu nekk nga koy wute doo doo sama baay dama lay laaj ndax doo sama baay rek man dama lay laaj ndax doo sama baay lu yàlla indi laa la njëkk a laaj dama la laaj rek waaw moom xam nga xam xam nga xam nga xam xam xam nga sa xam nga xam nga sa xarit ba lu mu wax dafa ne anta wa maaluka li abika <laughs> si dem ma xam nga ne mu kàllaf war sa weddi boppam lépp loo xam ne Abdoulaye Sifan moom ku gis ki bokk ñu waxulu dëgg kenn si Maktoum yàlla na gudd fan te wér dafa am conférence bu mu doon def kii Louga moom Moustapha ne ma maam daal sama conférence bu may def kii Louga sama saa yaa koy présider fekk ba ba sëñ bi dafa maa yónni Jolof ma ne ko maa ngi jëm daara Jolof su ma wàññeeku naa ñëw ba ma dikkee Louga ca mbooloo ma ma ak rek mu daal ma yëkkati nag lu nekk wax ko borom yëf yi ñëw na nangam nangam toog leen nangam nangam ñu ne xeram mu ne la yow leen doon xaar kenn waxagul dara ma ne ko ànd lu may indi mu ne ma loo indi ma ne ko sa maam Abdoulaye ma ngi cay jag saaw nee na naa ko fekk léegi comme nag sa sàkkoon nga ci man lii sañu maa dëgg jóg te ñëw ma ba nga gis ma ma wax li xew mu ne mbokk yi xam ngeen nu ñuy def ñoo dee mën nañ sant yàlla bu fekkoon ne bëgg nañu feccal ko dañ ko war a feccal ma ne lu tax mu ne li mu wax ne sama maam da ko soxla waaw bu ko maam sama maam waxoon ne ko boo demee ne Moustapha Signor ak mbooloo ma ñëpp nañ ànd ak Omar si wuy suma kon nu ngeen di def ñu ne si ah, xanaa mu bu kenn demee ma dem bu kenn demul ma dem comme que nag nee moom doo ngeen soxla ñun ñoo ngi fi des waaye ma wax ne amante ne ma boo dee wax amante Diop ko di nga ak waa daayira bu yëpp ak nga wuy si léegi nu ñuy def kon dañuy def waaw kon bu waxee da naa naan fi bàyyi te wuy si ko nag tegal maa ngi dem yal na la yàlla yóbbu ci jàmm waa ba nga ñëw ba nga ñëw incha allahu taala dinaa la ko jox si